maa ngi jégalu nag am na ñoo xamante ne nii du ñu seetaan TFM man nag il faut may seetaan ñëpp man damay seetaan ndumbelaan laa seetaanagul te dinaa ko seetaan ci kanam damay seetaan ñëpp. seetaan ban public. ngi dégg am na ñoo xam ne seetaan TFM mais man il faut que ma koy seetaan. Parce qu'on a besoin de déconstruire pour reconstruire. On a besoin, de, on a besoin d'avoir, de ham, et à da ñuy communiquer ñoom il faut ñuy déglu ñuy communiquer état pour mën di indi réplique. waaw loolu rek je sais ñu bëri ñu ko seetaan mais il faut ma sant nga ko seetaan ñëpp di mën indi yenn leeral. waaw Amadou ba fa nekk yéen ñi ko dul seetaan ma indi leen un sax émission bi ni mu xaw a demee mais gis nga Charles boo ko indilee ko am xam-xam dafay lem geenam rom rom mu toog ci wax de Amadou ba li muy toog yëpp moom xoolal moom tekk la def moom tekkam bi yëpp mu ngi déglu Amadou Ba rek mu ngi déglu Amadou Ba rek waaw mu Ba rek bu mu def Amadou Ba daal moi expliquer expliquer ba nous ñun bu ñu neexoon mënoon nañ jël dem jël pouvoir bi xeex mu ne voilà voilà écoutez-moi ça voilà mooy làkk tubaab man mënuma làkk toi il yi là, écoutez-moi voilà voilà scandalisé wu voilà comment est-ce que dans un pays normal ngay jël ay armes di jëli kii moom li Amadou Ba wax mu ngi Amadou et pourtant Charles c'est un journal il est témoin de la de de du trajectoire

musoo gis patriote bu yor pistolet war a yor dara ñu ñooy dajaloo par centaine de milliers coow du am coow du jib ñu dem ba téye nguur mën ko dem jël Ousmane Sonko génne bu leen dem ca pale ba ñoo leen toog nañu ko gunge loolu yépp nekk suñu histoire waaw mais comme amul fu mu jaar Amadou Ba Amadou mi nga xam ne mu naan nii nga mu naan nii amul lu mu wax xamul mu wax

état bu Macky Sall ak ñi nga àndal seen nguur gi da ngeen di fen Ousmane Sonko am dëgg mais mu leen antique 307 bi ne wax ba voilà voilà pare na ci de pare na ci ne voilà te pare woon na de pour Sonko Amadou Ba sur le fait que Amadou Ba nee na Pastef bu leen neexoon ñu jël ay Amadou nekk xeex yi demee mu xataraa yi fi taxu mais mu lire article 307 cent sept bi ne waa Badara gis nga li wax nañ ci continuance wax nañ ci article 307 cent sept mu ne waaw nangam sangam wax wax wax wax wax lire ba pare gars nak wa waa acca léegi analyse lolo tax ñu teg la fi de charme mun waa mi ngi non article 307 cent sept baa ko expliquer de jamais parce que arrangé wu leen waaw waaye bu fekkoon den Ousmane Sonko lañu ñu daal ñaata jàkkaarloo ngeen fi def gaay la leen lii ay caaxaan la da ngeen di fen da ngeen di fen ngeen xam nga ko di waxu leen ko da ngeen di fen depuis njëppi kat Ismaïla major Fall article bii nii Ismaïla major Fall ba mu fenee ñaata jàkkaarloo ñoo romb mënu leen ko woon lire du affaire droit affaire lecture la buñ la arrêté hein code dimanche ba anéantiru la ngeen toog. seen seen ju seen seen ki nga xam mooy seen juriste yéen ca télé ba ñëw ne lii du dëgg du yoon lu ngeen dimbali Sénégalais wax leen luy dëgg du yoon ngeen ne di créer affaire bu bu bu bu ñu bu kii gañee ñu wax waaw bu kee gañee ñu wax waaw léegi ñun wax leen ñu léegi ñun kan moo mës ban juge moo mës a ñëw condamné nañu ñun ñu bañ xam nga débat moom mooy lan te foofu la Badara Gadiaga ñàkkee honnêteté intellectuelle mooy dafa ne juge Keïta lu fi déggul ci waa APR ak waa PASTEF da ngay wax lan la ko waa PASTEF wax ak lan la ko waa APR wax <coughs> parce que à la base li jar a analyser mooy juge Keïta boobu noonu lan ci lan la doon statuer Juste Sabasi, Sabasi Faye qui lan la doon statuer parce que nous question de renvoyer les gens dos à dos ku ci nekk li nga wax lan la APR xarab juge Pastef xarab juge ku ci nekk bi nga koy xarab ci lan nga ko xarab ci lan nga ko teg dig moom mooy dëgg looluy analyse wax Issa nee na waaw Seydou Sène nee na déet mbir a ngi nii mais nga ñëw ne non Isa moom bu ko dee waa ki non non da ngay wax ku ci nekk Pastef bi mu nee waaw lan argument la indi Pastef bi mu nee déet yan argument la indi loolu mooy ek loolu mooy miroir éclairer les Sénégalais looluy dégg moo tax ñun bu ñu am gêne ci yooyu patriote ñaar yi wax naa ko ci live mooy ñi naan pensée unique patriote yi kenn du leen booy wax ci ñoom lu neex ñu tàgg la waaye ci ñoom ñu naqari kii la ku wax ci ñun lu neex analyste nga politicien nga journaliste nga koy mënti doon boo waxee ci ñun lu neex non Babacar Diop mooy dem defal la montage bu rafet gars yi tàccu yëkkati bës bi de li nga patriote de buñ la mayee seen bës bi ñu yor nag li nga buñ la ko joxee da nga yaakaar yow àddina yow kese yaa ciy nit bul ak patriote yu garaaw la def li nga buñ la def la seen nit ba yëkkati la boo amul xel da nga nii dañoo dof dégg mbàcc noonu live heure ah, dégg naa Moustapha Niang mais c'est tellement pertinent ah, même nii di live nii da live daje gaay

ñu tagg la yëkkati la ba ci kaw boo waxee ci moom safaan ba ñu tege la nële buñ ci am problème buñ ci am complexe pensée unico booy ils sont pas comp damay gis sañu bokk ci ñu naan booy nag amuñ compréhension ay ñu ñu ñuy rey dammati muxoñi damm seeni loxo rey rey ay dóor ay bal tëj fii jàpp kii ngeen ñu fi di sonal ñi ci ay ay jataay quoi

ak koy mënti doon déjà koy mënti doon koy mënti doon Ousmane Sonko dañ ko jaay ñu tàccu Ousmane moo nekk ci dëgg ñu Sonko moom moo baax ñu Sonko ndeyama liggéey laa wax de rafet na rafet na ñu tàccu donc bi nangam ñu tàccu dama leen di jox gën a sori sa loo xamante ni sa ree na ba pour pour boobu mu dee xam nga mooy bu dee bi am mënoon naa ne Ousmane Sonko projet bi nii ñu tàccu Ousmane Sonko leneen moo wax lu dul loolu kese la Thierno Alassane Sall laa déglu xol bu garaaw la yor te nag loo ci xamul man je vous le dis de Thierno Alassane Sall ñemewul ma de gis nga gars yi de dañuy coog nii di wax nii mais xam nañ gan gi de ñun xam nañ lu bari Thierno <laughs> wallaahi Ousmane ci gannaaw am rek nga koy jëwee xam nga ko yow Thierno Alassane Sall wallaahi xam nga Ousmane Sonko bu baax a baax a baax a baax a baax da ngay dof dof lu rek da ngay dof dof lu rek xam nga nga jaar ak Ousmane Sonko. moom xam na ko li may wax nii Thierno Alassane Sall xam na ko Ousmane Sonko xam na ko Thierno xam nga bu baax yow fi nga Sonko xam nga ko de non xam na ko dama leen wax patriote Thierno Alassane xam na bu baax Ousmane Sonko xam na yaru Ousmane Sonko xam na dëggu Ousmane Sonko xam na fullaay Ousmane Sonko fulla laa reex nag fullaay fay Ousmane Thierno Alassane Sall xam na ko bu baax mu ne nee na xam nga gars yi <laughs> décision bi da leen xaw a déranger de <laughs> yii laay lii di laa gars yi décision bi daf leen constipé daf leen non décision bi daf leen daf leen daf leen daf leen euh, voilà leen a déranger de mu ne mu ne ñu invité ko mu ne <laughs> mu ne Ousmane Sonko moom moom dafa seetlu ko ne Ousmane Sonko affaire yi bu ko arrangé rek. tey wuy beaucoup arrangé wul du wuy mais écoutez-moi ça dans la salle un opposant mooy wax un républicain un républicain mooy wax déjà la première chose mooy mauvaise foi bi nekk ci moom maanaam jugé na Ousmane Sonko ko c'est quelqu'un bon à ni bu jàppee ne affaire bi arrangé na ko day dem bu jàppul affaire bi arrangé wu ko dem c'est-à-dire mon déjà la première erreur mon mon jàpp Ousmane Sonko procès bu mënti am mon hamna na nan lay c'est-à-dire Ousmane Sonko limou li mu mon Ousmane Sonko hamon na ne day am ndam fii moo tax dem encore Ousmane Sonko demul ay avocats ñoo dem. lim mu lim li mu ñu waroon njëkk a leeral ban procès la Ousmane Sonko demo bu dul bu aji sar te bu aji sar mo gënoon na leer bu mu am ay bu lepp bi nga xam bob bu doon bu doon def bob moy bi gën a bi nga xamante ne mën na dem mais c'est un homme politique il agit selon ses intérêts politiques mais xam nga ban mauvaise foi moo nekk ci li mu wax moy Ousmane Sonko bu ko arrangé ni de bu xamé ne day am ndam la wax de mu dem bu ko xamul du dem da nga ko waroon argumenter dafa bok ci ñi nga ils veulent mettre dans la tête des Sénégalais que parce que lool sa la wax de des gens qui ne respectent pas la justice Ousmane Sonko c'est l'homme politique bi gën respecte justice dans l'histoire politique de ce pays là man man mako Ousmane Sonko moo ñu dimbale moo ñu xam justice parce que la justice elle est rendue au nom du peuple on parle de justice on parle pas d'hommes de justice on parle pas de ces hommes là yi koy incarnés, on parle de justice en fait Ousmane Sonko fan la ñu ne ko dañu la convoqué da nga war dem wuyu mu xam mu xam lu ne bu demee wuyu section de recherche ce qui est prévu mooy ñu jàpp ko tëj ko rek déclenché dossier nous, nous, bi mu xam ko en tant qu'homme politique la seule différence mooy non seulement il a l'information il est stratégique, il est courageux et il sait prendre des décisions là où il faut pas parler, assumer quoi. te xam nga lan parce que noonu la Sénégal lan sommes <clears throat> parce que leen ne bu ngeen ma et puis le discours il est là

quand ils veulent être intelligents ils sont ils le sont bu ñu bëggee nekk ay nit ñu jàng dañ koy doon bu ko bëggul nek, dañuy nek ay naaféq parce que la logique voudrait que mu ne ah Ousmane Sonko dañuy wax dëgg la wuy parce que c'est un député mënuñu ko convoquer mais dañuy ñëw ne la convoquer nañ ko mu bañ loolu la woy de la malhonnêteté intellectuelle parce que li leen di déranger un homme politique boo xamante ne le fait que le président Ousmane Sonko défie ñoom la ñuy état le fait que mu bañ ba pare le fait que mu am ci ndam da di parce que plus Ousmane Sonko di am loolu plus ñoom duñu ci parce que Macky Sall lolo, rek a mënoon opposé Ousmane Sonko angu frère, foofu ñoom kenn ci ñoom parewul woon pour dugg foofu noonu Thierno Alassane Sarr il a posé lu mu jàpp un acte héroïque ñëw toog nettali li mu jëflanteeg ni mu jëflanteeg Macky Sall jëflante kook bun jon la xawma kan li mu jëflanteeg président ak premier ministre mo nañ ko poser la question de savoir lan moo tax defuloo indiscrétion lan moo tax nga génn wax ko mu justifier ko bu don Ousmane Sonko du ko justifier Ousmane Sonko ci justice boobu la tàmbalee gars yi Ousmane Sonko problème bu mën si am bi ñu koy gazé fan la doon dem justice wuy de justice bi ñu koy booleeg nervi yi fan la doon jëm wuy ju justice bi ñu koy jàpp le 3 mars 2021 fan la doon jëm wuy de justice bu ñu nee dafa def mu génn ci mbedd mi ne léegi maa ngi politique ñu war ko jël yóbbu ko justice ñu yóbbu këram barricade cinquante cinq jours loo xam amul benn décision administrative amul benn décision de justice ngeen toog fi di ñu tempaniser ne Ousmane Sonko bu ko neexee rek lay dem c'est-à-dire Ousmane Sonko moom xam na moom moom xam na quoi Ousmane Sonko yu nekk tête de ñu dem ci élection conseil constitutionnel ñoo def lu ko neex donc Ousmane Sonko mu xamoon na mu nangu dox dem kenn du ko wax ñaari yi doo leen dégg ñu wax ko que ni président Ousmane Sonko bu dafa ne Macky nañ ko bàyyi mu doxal que ni Ousmane bi ko conseil constitutionnel tàncee ne ko bàyyi dafa ñëw taxaw ne leen garaaw nañ leen dem élection.

Yo, tu as fait pire moi dans nga saaga juge tu as dans nga saaga maintenant justice parce que yo da nga jàpp ne Ousmane Sonko xamoon na ne bi mi dem Ziguinchor day gagner. donc il avait déjà la décision de justice Donc, quand tu veux être quand tu es un haineux quand tu veux atteindre quelqu'un ça va sax parce que tu dis que tu es le républicain va respecter la justice mais yow yaa ne Ousmane Sonko dafa xam ne dafay gagné tu, tu, ci ci ça veut dire que tu conçois que le républicain vous vous entendez parce que quand vous parlez vous n'êtes même pas vous parlez même pas de manière intelligente en fait.

ak yeneen ak yeneen ak yeneen dañ ko waroon jox dëgg parce que Ousmane ko lu mu mës a jëflanteeg état bi moo ne ci dëgg mais c'est dommage c'est très dommage. lay toog Il y a des gens qui xam dañu que ne le président Ousmane Sonko diko yalla may même Ousmane Sonko bu difficilement ba am deug sax ñu ne sont méchants Trop méchant méchants. c'est le peuple qui va juger C'est le peuple bon moi àtte C'est le peuple àtte na ma pare que nga dama dire ko wax ne sais pas ban génération de mais génération bi ñu nekk nii tey génie politique mo mënul génn ci kanam président Ousmane Sonko après lañ koy comprendre parce que ce qui se passe dans ce pays là li Sénégalais yi di comporté woo dafa am lu fa def ni a ñeu fekk tout un système xam nga la différence qu'on a avec les autres je jour ma wax ko muy Mali muy d'autres pays ñom dañu dañu dañu dañu démettre ay régime